ñooy wër ci kuréel bi waaw nga xam ne moom boo ko taalee rek moom moom ngi fii ci Touba benn panuk safar fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ci ndigal ñuy leeral kon lii nga xam ne mooy jumtukaay bu yees bii jëm ci luy taxawu ak a dolli jàppandal ci lu jëm ci njàngum kuréel ci misaal dafa mel ni tey jii bu ñu doon yor feggu lii mooy feggu bi feggu bi nag dafa doon loo xam ne dafa ànd ak jàppandi ndax maye na nit ki mën di wëlbati lii nga xam ne mooy lay tax mu gis xasida gi ca na nga xam ne ni na ko gën a jekkoo ba gis gi jàppandi ci moom te du jar muy jóg loola mooy jëmmi feggu bi la ca des mooy njàngin bi nga xam ne du soxlaati nit ñi di wër kuréel gi di jaar ci kaw ginnaaw ñi jàng di ngir di leen yóbbul téere ndax lépp jumtukaay bii moo koy def su ko defee nag dana mel ni defaale na ko mbooleem kuy jàng ci mi ngi mel ni ñu ne lii mooy jës jësbul xulóob mawaahibu naafi'a ngi ni muqaddimatul amda midaadi ñu ne kon nañ daal di ubbi jësbul xulóob sama baaraam bii bu ko bu ko bësee danaa ubbi waaleel mboolem ku ne ci kuréel gi ak lim bu nu mën a toll jumtukaay yi mate na ko kon ñu daal bës ubbi jësbul xulóob suñ ko ubbee nag fi saase ñun bu ñu defee nii walla ñu tëjaat xët wi wala ñu ubbiwaat xët wi dafa mel ni ubbiwaale nañ mboolem koy jàng su boobaa nag waa kuréel gi ñu ñaan leen ñu jëlal ñu ay abyaat rek ci jës bu xulóof ñu ànd ko ñoom li ko dalee ci yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana bismillah salli